قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقى هاجت قصائدي قلب كل من له سعادة ولن خاد الأمن jërëjëf mbokk yi ba tey ñu ngi ci reportage yi nga xamante ne ñu ngi koy amale fii ci kër Sëñ Tuubaa gi nga xamante ne moo nekk ci jumaa ji ah, ñu ñëw fii ci waañu soxna maam Issa Mbacke ahlu café ñu fekk fii jëwriñ Dame ah, di jëm joo xamante ne dootu ñu ko présenté ci biir ah, kuréel bi sëñ Dame lay bàyyi rek nga nuyoo ak mbokk yi téléspectateurs yi lay bàyyi xel waaw a'uuzu billah bismillah inna waliyallah assalaamu aleykum ñu ñaaw bi ñu sant yàlla ñu ngi julli ci sant bi santaat Serigne Touba mi suñu yaakaar yi tey di suñu yaakaar yi ëllëg di salaat suñu njëbbal ci maam Cheikh Ibrahima Fall tey ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha xalifatul am li tarixatil muridiyya mu yàgg fi lool tànd ak wér di leen nuyu bu baax te di leen jaar ci bis bu rëy bi nga xam ne mooy bisu xasida bi kon ñu ngi naan asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëriñ daam sëriñ daam xanaa laaj bi ci topp rek moom moo di euh, liggéey bi naka ngeen ko préparé fii ci euh, biir kër sëriñ Tuubaa gi euh, jëmee ci bis bu sell bi ñu nekk waaw liggéey bi nag niñ ko dooree mooy lu jiitu sax njàngum xasida mi ku ne xam ne ne bisu sikra alxamis bi jàll muy tur bi nga xam ne moom la Cheikh Amadou Muntaxa woote woon daaru minam waaye ban jógee ci tur yàlla rek lañ jël mboolem bagage yi nga xam ne moom la ñu yittewoo indi ko fii ci kër sëriñ Tuubaa gi biñ ko indee bi yëf yi desee ñaari fan ci la éléments yi commencé ñëw ndax ku ne xam na ni section yi dafa dafa bari ndax collation moom euh, bu ne café meew ataaya ay ji lu ne nga ci ak was ak mbooleem xeeti naan yi rek noonu lañ ko faralee ñu ànd koog nag suñu jëriñ waa Hizbut-Tarqiyyah ànd koog waa Kër Sëriñ am surtout ànd koog mboolem section yi bari waaye ñun dañoo faral li nga xam ne mooy wàllum kafe gi kon dañoo teel a ñëw bi mu desee ñaari fan ngir mën a waajal liggéey bi waajalin woo xam ne tubaarikàlla dañ murid yi nga xam ne sëriñ bi daa dogal ñu toog di jàng xasida wala toog di jàng alxuraan wala toog di def ay istixfaar duñ mën a jug fañ ne waaye ñun ñoo leen di waajal ay berne di leen ko di dugg ndax 6 euh, heures du matin lañ commencé liggéey bi commencé nañ depuis ci 6 heures ngir dina leen li nga xam ne mooy ndekki li ndekki li moom mooy ubbeeku googu ubbeeku gu mooy kafeeg euh, 6 heures gi waaye bi 7 jotee 8 heures ci lañ joxe ndekki ba nii arrêté guñ ndax nit ñi dañoo bari installé matériel yi espérer indi machine bi ku ne xam ne ñoo koy ànd waxtu wu nekk bi ñu indee machine bi café geeg kaas yeeg lépp yàpp lépp yàmm na nu euh, door nag segg bi depuis mu ci guddi euh, nga xam ne fi mu toll nii dañuy tàngal ak di joxe. ndax mën nañoo xam quantité de café bi nga xamante ne euh, segg ngeen ko fii ndax jàpp naa ne du ñu ñu ko ci waaw nga xam ne maanaam kenn mënut a xayma wala nga ne àpp bii lañ yemale limu café gi suukar si tamit noonu boobu ba léegi saako suukar yaa ngi ñu ngi ñu ngi jënd daaj di kaasi agité yi lu ñu programme woon réserve ko jeex na ba ñu wutiwaat leneen moo tax mboolem ku tedd gi moo toll noonu moo waral li ñu ñu li ñu programme woon ci quantité café wala ñu programmé ko ci quantité suukar maanaam jéggi nañ suñu programme waaye ku tedd ki nag def na fi xéwal gi ba tubaarikàlla lépp jàpp ni na moo waral murid fu waay nekk ci biir jumaa ji wala bitti jumaa ji wala site yi nga xam ne moo euh, euh, yi danañ fa ñëw ko def ku nekk dañ laa samp barab boo xam ne boo ci café da ngay joxe café boo tollee ci da ngay joxe ataay boo tollee ci meew boo tollee ba ci yi nga ne wala yi nga xam ne buñ tollee ci xéwalu euh, moom la ñuy leen faa teg ngir di leen leen ko dinañ loo waaye xéwal lépp yem na moom lépp yem na noonu lañ ko amale ndax am tamit thème bi tey kenn ku ne xam na ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha daf ko wekk ci waxtasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu euh, ngir euh, yéen ñi nga xamante ci ne noonu la gën a mucc ayib ndax daayir bi pare na pour ànd ak mboolem dawaayir yi nga xam ñoo nekk ci Touba ndax mi ngi dox ay relation ci loolu waaw waaw waaw ndaxte ndax ku tedd gi moo ñu ndax ca njaareem dafa joxoon benn mag benn Euh, xalima euh, jox ko ndigalal damm ko mag ma damm ko mu damm mu boole euh, say yu bari ay gi tax jox ko ndigalal damm mag ma damm ba ba ba sonn mun ta damm mu ne ko lii de misaal la ndax kenn ci yéen bu bu bu beddee koo seytaan da koy mënal dara waaye bu ngeen booloo rek tubarikal lu ngeen song dañ koy daan moo tax si Muntaxa loolu lay nuwaat moo tax la ma waxoon daaw jëkk ne si Muntaxa dañoo ñimaloo boppam ndax la mag ñi daan def njaareem Sëñ Tuubaa dañ ko def ak mag ñi lool la ñu ñimaloo ndax toog ñun di ñu digal ñuy def Sëñ Tuubaa ni la ko daan def mag ñi leen daan jàngaloo loo ah daa leen sotti parfum sikki yi mag ñi sëriñ naa daaj xasida di jàng ba ku tëdd ki tàggoog sagom maam Cerno Ibrahima daanu ba mu daanoo sëriñ bi ne ko lan moo la daanee njàng neexu ni njàng mi wala ki ko bind mbind mi mu ne ko mbàkke xawma lu ma daane mu ne ko moo ne de ki bind mbind mii fa mu ko doon bindee fan ko yóbboon ah, kun fa yóbboon ku dul sa waaj yi lu ko fa jëlee bind lii kon ku tedd ki xamoon na li nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadou Mountakha indi moom ab moom démbam ju ne maam tayam ju ne day gàtt démbam kon daal nu ngi sant nu ngi gën a góorgóorlu la gën a dëgmal Sëñ Tuubaa soo soññu ndaw ñi nañ xam ne ndawi Tuubaa ñun suñu suñu fierté wala suñu ngëneel wala suñu pësteef mooy liggéey Sëñ Tuubaa nañ ci sax lan mooy kàddu yi nga xamante moom ngeen tàggatoo waaw li ngi tàggatoo mooy santaat Sëñ Tuubaa ñun daal ñu ngi toog fii ñu ngi toog fii di nox ci xasida yenn saa ñu góog café bek loolu la ñu dund ñu ngi ñaan ñëpp jàmm baak ngeen dégg reportage bu solo bi nga xamante ne def nañ ko fii ci waañ wi nekk ci biir kër sëñ Touba gi eh, ahlu café bi nga xamante ne ñoo ànd ak soxna maam Issa Mbacké ñu koy nuyu de passage di ñaan yàlla yokk aw fanam ak wér-gu-yaramam ci barkeb Serigne Touba ak mboolem eh, membre yi nga xamante ne ñu ci ginnaawam mbokk ci kanam tuuti danañ demaat ak ci yeneen waañ ndax xam ngeen ne tey nañ ne eh, wàllum waañ wa الهادي المنتقى صلى عليه من هداه وانتقاه قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه وانتقاه هاجت قصائدي قلب كل من له سعادة ولن خاد الأمن